Ngok Ajay Ngok Ajay Ngok en direct Rak TV Rak TV Adji TV Rakkal TV Adji Sarr ngoog Rakkal TV gars yi ñu ngi koy jël pour mu dugg eh eh dans sa nak rek nako nako sécurité bi la waaw noonu la sécurité bi la da nga leen di may sécurité bi ngay buuree l'information à temps réel sécurité bi mooy buuf àndal Maître El Hadji Diouf àndal Maître El Hadji Diouf àndal Maître El Hadji Diouf Rak Rak TV hee ndeyjire waajira maa buuf àndal Maître El mi ngi noonu xam naa day soog a dugg si tribunal ànd ak maître El Hadj Diouf ñu koy filmé Rak Tak TV la Adji Sarr Ngok ñu ngi soog a yegsi biir tribunal macha allah. dégg nga nee na il dit oui de te ko jege gaay Il dit oui au procès. Oui au procès là. Oui, vive la vérité. Vive la procès. Vive la vérité. La tactique. Bon, bon. Adji Sarr moo sonn neex la di dugg si biir ak mère. Voilà. Adji Sarr